non non non xam nga xam nga lii ñuy def nii yàgg nañ ko def muy le parti socialiste di le parti démocratique sénégalais tey ñu am ñaari coalition yu mag yoo xam ne ñoo ànd au niveau de la Médina au niveau di département de Dakar donc moo waral tey ñu def proximité bii ñuy def di dugg kër ak kër waxtaan ak askan wi c'est très important je pense que suñu ñaari candidat yi ñoom muy Ngouda Diène ak madame kan ñoom yàgg nañu def proximité. xëy na campagne moo waral ñu def lii tey mais ñoom yàgg nañu def proximité yàgg nañu def social donc mérite la pour ñoom tey ñun waa Médina ñun ñëpp ñu ànd bokk ndey bokk baay les sympathisants les militants les responsables les dignitaires ñu jox suñuy carte ñaar ñi ne serait-ce que pour ñaar ñi rek ñu ay jigéen aussi ñu cëral jigéen ci biir réew mi cëral jigéen ci biir Médina donc ñun ñëpp tey suñu devoir mooy ñu jëli suñu carte ñun waa PDS yi ñun waa wàllu yi ñu sànnil ko yeewi askan bi bu ñu duggee ci biir bureau de vote yi jën ci fa fekk bulletin wàllu dinañ fa fekk bulletin yeewi mais sunu devoir mooy lu ñu sunu président de la république sant sunu secrétaire général Abdoulaye Wade sant ñu ko mooy nañu jël euh, bulletin yeewi askan wi dugal ko ci urne yi ba le soir du 31 ñu ne vive la coalition Yewwi Askan Wi au niveau du département de Dakar. merci mais mais mais ñu ngi dégg ñu naan ñu naan tey jii waa waa waa wàllu ànduñu ak 100 waa Yewwi parce que dégg nañ Doudou Wade ci benn émission bu ko Pape Ngagne invité woon ba ba vidéo boobu di fuité est-ce dëgg la ni waa Yewwi da ngeen di naxante seen biir wala coalition bi intercoalition bi dëgg la. intercoalition bi dafa dafa dafa bett ñu bari même tey ndayu mbili gi di le président Macky Sall intercoalition bi da ko bett donc euh, c'est très normal ñuy intox on est en politique wax lu ñaaw wax lu dëgg yomb na mais ku seetaan émission du Wade bi dégg na li mu wax. Yewwi Askan bi moo représenté intercoalition bi au niveau du département de Dakar loolu dafa leer nañ mais nag en politique ku nekk yaay wax lu la neex mais ñun lu ñu gëm te gëm ko mooy incha allahu dinañ dinañ renverser tendance su Médina dinañ gagné Médina man li ma gëm mooy ñun au niveau du département de Dakar Barthélémy Dias gagné kenn waxatu ko day gagné bu neexee suñu borom bi ndax moo rayoon sans voix. à l'espace de six mois cent mille voix à l'espace de six mois je pense que gab bi c'est euh, yaatu na ci ñun ñu xam élection donc tey Barthélémy Dias bu gañee Ndakaaru te gañewul Médina man je damay gëm ni ñun gañewuñu Ndakaaru donc ñu dañu am défi au niveau de la Médina ce défi sera relevé ensemble et nous gagnerons ensemble incha allah merci beaucoup